bu matale muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu. ci ndigalu sëriñ Ahmadul Xayri muy jëwriñu sëriñ Mor Diop. moo ma yebal ma fekk si sama mag sëriñ Mouhamadou Moustapha Diop. fekk fii sunu waajur sëriñ Ahmad Dame Diop bi nga xam ni moo jiite mbootaay gi génne woon ca daara sëriñ Mor Diop. fekk fi bokk yi ànd ak it sëriñ Modou Diop muy sunu mag jiite délégation bi jóge Ndar njabootuk sëriñ bi nekk ci biir di njaboot koo xam ni ay doomi boppam ak ay doomi xolam ñu ngi sant yàlla bu baax di sant boroom jëf ju réy ji boroom pas-pas bu màgg bi di sëriñ sekk ak mbooleem ku koy jàppale ci biir liggéey ndax liggéeyal yàlla la liggéeyal alquran la di am mbégte lool moom sëriñ ahmadu bin tuddee bis bi sëriñ daam abdurahman loo muy reyukaayu jàngalekatu alquran yépp ñu jël sëriñ Mor Diop def ko muy invité d'honneur bi muy lu rëy loo xam ni jàpp nañ ñu teraanga gënu ko rëy mukk kon sant nañ ko ci loolu di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu jàppale ko bu baax ba fépp fu mu bëgg a éggale liggéey bi suñu borom dimbale ko yaatal wërsëg wi ba li mu bëgg liggéey lislaam mu matale ko nin ko seetaane ci vidéo bi léegi sëriñ Mor Diop radiallahu anhu kenn la woon ku yàlla mayoon senegal ci atum 1926 mu génn àddina ci at mii ñu génn muy deux mille vingt deux mille vingt et un ci weeru koor gi fukki fan ak juróom-ñeent ya juróom-ñeent fukki at ak juróom yoo xam ne moom la nekk ci kaw suuf mbooleem ku ko xam ci loo xam ne dañ koy séddaloo yàlla mbooleem ku ko xam mosoo koo fekk yorewul alquran da ko daan jàng di ko jàngale li wattu ci moom ci nit kenn xamul nu mu sharaf gi suñ borom def ci sëñ daam abdourahman loo ba nga xam ni li gën a bari ci njabootu sëriñ Touba ak ci taalibe yu mag yi moo leen jàngal sharaf googu sëriñ la yàlla may sëriñ moor Ba sëtu ñooña ak seeni doom ña ca gën a bari ci moom leen jàng alquran ñenn ñi ci moom leen jànge xam-xam kon xam naa ni loolu bokk na ci solos lu tax ñu bëgg koo teral ci bis bu tedd bi yemul woon ci jàngale alquran ak jàngale ko kese wala di jàngale xam-xam kese waaye da daan jàngale ay métier li génn ci ay loxoom ci ay métier diggante menuisier métallique di menuisier bois wala mason kenn xamul nu mu toll bépp liggéey boo xam ne nekk na ca barabam ba wala ca barab yi nga xam ne ay daaraam egg na fa la fa nekk lépp ay dongaama ko def film bii ngeen doon seetaan léegi tey jii la fay taxaw ci bâtiment ay dongaama koy def électricité bi ay dongaama ko lépp loo xam ne lu soxla la tàggat na ci donga yi tàggat na ci njaboot gi yamul ci loolu mooy amoon na gis-gis bu sori xamoon na ne àddina du jàng alquran yem ci du jàng xam-xam rek yam ci waaye war ngaa mën a jëriñ sa bopp jëriñ sa réew loolu taxoon na ba ubbi na ay daara yu bari ci biir réew mi ak ci biti réew fu mel ne Gàmbi defar na ay qaadi ci réew mi ak ci ci Gàmbi defar na ay ay ay aimma ci réew mi ak ci Gambie waaye jël na ay nit yoo xam ne itam ba mu leen jàngalee xam-xam ba noppi dafa ubbi benn franco arab ngir dafa ni dafa gis ñi gën a bari ci nit ñi suñ génnee bitim réew suñ ñëwee dañuy indaale culture boo xam ne du culture réew mi wala ñu indi diplôme boo xam ne dañuy am problème mu adapté wu ci ci ci ci ci système bi mu indi benn franco arab boo xam ne ku jàng al alquran ba noppi dugg ci diplôme ba nga cay am diplôme mu état la. la ca jot a génne tey jii bëri na ñoo xam ne am nañ ay baccalauréat kenn xamul nu toll ña ca am ay licence ña ca am ay master ña ca am ay doctorat kenn xamul nu toll ba ñu ngi ci université réew mi ci lycée réew mi ci école réew mi di fi liggéey kon nga gis ni nii mu fexee ba nit ñi di jàngale al daaray alquran fii ci Ndakaar gi ay daaraam a ngi fi ci Touba ay daaraam a ngi foo dem ci réew mi danga ko fekk daara joo xam ne moo ko sos wala moo ko soslu noonu itam la fexe ba def ay nit yoo xam ne danay jariñ seen bopp di jariñ di jariñ réew mi te loolu lépp yemu ci mooy dafa jëloon alalam lépp ay millions yu bari defal ko yàlla ci jàkkaam yi defal ko yàlla ci jumaawam yi defal ko yàlla ci nitam yi ndax ñooñu may wax ne tey jii da leen di defar ban am bac wala ñu am licence war a jàngi bitim réew moom mooy wëlbati ko ci alalu boppam jëndaatal leen billet te li gën a bari ci ñoom bu ñëwee seeni baay mi ngi dund seeni yaay mi ngi dund teewul sëriñ bi mooy jëlal alalam ni nañ ko sampal kër te jël alal ju bari jënd suuf su bari dëkkal fa way néew ji doole yi la ko wër lépp tey jii alhamdulilah rabbi alamin ay nit lañ yoo xam ne moo leen fa dëkkal kon nit la woon koo xam ne jàppul ni benn sëriñ bu toogoon ci ab roq rek yem ca waaye jàpp na ni àddina la koy yéwénal solo la soo xam ne ñëpp la war moom ma toog ca daara ja ak ña nekk ca pénc ma ñoo ca bokk yem looloo taxoon mu waajaloon njaboot gi waajaloon doom yi waajaloon taalibe yi ngir loolu kon ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax sëriñ euh, euh, sekk ak ñi koy jàppale ci C3S yëpp di leen gërëm di ñaanal yàlla mu bari ñu mel ne ñoom di ñaanal yàlla mu baril ñu mel ne ñoom ndax suñu baree fu fu seen doolee tool rek alquran dina fa siggee kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah docteur Malick ci kàddu yi am solo yooyu muy doom ci sëriñ Mor Diop eh, daanaka noonu la def njabootam gépp tàggat leen ci ci xam-xam yar leen ci diine amoon gis-gis bu kawe yi nag te dañuy wax ne Serigne Mbacké fee mu nekk ci Ndar boo fa demee espace bu yaatu la boo xam daanaka xaw naa mat eh, ñaar fukki kër ñaa mm. nañ kum fa mosaa di dëkkal da laaj boo nangoo daal ma di la digal ngay bàyyi su ma juumee mayit nga digal ma ma bàyyi boo nangoo mu jox la nga dëkk kooku noonu la daa ànd ak nit ñi amoon ji tey doomam ji itam di si Moustapha Diop Ndar boo demoon Touba fi ñuy wax Aliya da nga fa fekkaat ab sémb bu rëy boo xam ni euh, day mel ni la leen seen waajur bàyyi loon itam ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy sàmm ndax Sëñ Mbàkke dañuy wax ni euh, gàcce gi mat gi gi ëpp ci gàcce yi mooy sa waajur mat bàyyi la fi nga ñëw mottali woo waaye wax dëgg yàlla moom njaboot gi mu fi bàyyi ñëpp moom mottali nañ macha allah mu mel ni kon sëñ Mbacke mën nga jàll ci programme jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf xam naa ñu wéyal programme bi jaajëfal bu baax sëñ Malick docteur ci kàddu yu am solo yooyu mu yëkkati jaajëfal délégation bi nga àndal yëpp ak ñi nga xamante ne ñooy waa daara ji waaye wéyal programme bi ndax tey bisu mbindum alxuraan la. ak wone jàmbaare alxuraan yi ak yi alxuraan am maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun